di tamit remercier aussi ah de passage le président de la république du Sénégal monsieur Macky Sall lu tax ma remercier nag mooy malgré li may wax yëpp ak li ma koy yàq yëpp ndeysaan am na humilité moom le président de la république du Sénégal monsieur Macky Sall am na humilité woo ma muy lu marqué nag sincèrement muy lu ma marqué <laughs> comme gars yi am na ñu soxla boo waxee ñu ne fen man maa Sénégal yëpp a may déglu monsieur le président de la république du Sénégal monsieur Macky Sall m'a appelé waaw monsieur Macky Sall gi jiite Sénégal wërngal képp kuy dox mu mu jiite la président woo na ma man Mollah Morgun mii man mu ndaw mi toog fii barke alxuraanul karim maa ngi koy remercier nag vraiment et puis nee na ma bu retourner de voyage incha allah bëgg ñuy yaatal maa ngi koy xaar bu retourner de voyage maa ngi koy déglu parce que nee na dafa voyager nii dans deux jours il sera au Sénégal et dina ma woo ñu waxtaan donc alxamdulillah comme ni ma leen ko waxee yàlla def na ni lu ndaw lañ waaye dem nañ ba bokk ci renu Sénégal maanaam ponkal yiy jiite réew mi sax ñun dañoo am ay kàddu yoo xam ne dañuy déglu ay ponkal ay ministre yu mag ci réew mi yu yor renu réew mi sax ah léegi laa ci coupé kenn ci kilifa yooyu ndeysaan ñu waxtaan lu yàgg sax waxtaan nañ nu mu dee dee benn vingt cinq minutes voilà <laughs> mu ne ma boros nga ma ci sax nangam nangam man xaw ma woon sax dañ dafa jël rek ñuy waxtaan mu ne man boros nga ma ma ne ko ah bon kan kan la ci mu ne ma xamoo ñi ngay boros ma ne ko waa ah, man nag gis nga de damay toj kaasi rek mais xàmmeewuma gars yi de ndeysaan <laughs> bu ma waxee turam ma ne ko ah dama jaaraati suuram sa ban kii mu ne ma man la ministre nanga ma ne ah d' accord ndeysaan <laughs> ñu waxtaan macha allah ku baax waay voilà mu ne ma moom def na trente ans ci administration Sénégal démb la doon ministre ñaa koy commencé di di di sikkal ak sàkkal ay sikki sàkk man bu ma waxee loolu damaa tiit mu ne ma trente ans waaw trente ans def naa ko ci administration kenn mësuma waxal man ñu ministre rek bërki démb ñu fal ma ministre rek coow la ni kur man ci laa ne may ñii <laughs> loolu lañ bëgg ma ne ah euh, macha allah kon daal yàlla moo def loolu ñu nekk nit yi nga xam ne dëgg moo ñu ñor di wax dëgg te tëjuñu suñu bunt yit comme nuñ koy faral di waxee bu ñu waxee kenn dara kooku noonu bu ñëwee ne moom bugg na wax dañ koy may la possibilité de parler de ñu déglu ko moo laa fii de bu ma waxalee lii moo laa kii nii nangam ak nangam man wallahi def ma ko kii mooy nangam dama lay déglu ba pare boo demee ba mu metti ma ne est-ce que bëgg nga confrontation ak ki ma jox info boobu noonu est-ce que bëgg nga confrontation parce que man dëgg moom a ñor dëgg moom fi bàyyi dëgg moom fi bàyyi combat bii dañ ma fee fekk te dañ ma fi bàyyi ma continuer sama combat bi Californie sax ñaanal naa ko nag mais nag gars yi ñaanal naa ko ñu dimbale ko pour mu pour mu tukki mais daal gars yi dañ ne ma kenn buggul taqaloog moom parce que dafa salte salte la ñu wax nag salte mais non Californie moom dafa salte moom kenn bëggul identifié wu ci moom moo tax dina yàgg Sénégal dina fa sonn lool dina fa sonn lool dina fa yàgg it mais ñaanal naa ko nañu jàppale ko ngir yàlla pour mu dellu Europe quoi parce que nit moom boo ko yéenee <laughs> xam nga ñàkk ñàkk matadi la rek matadi la waaw li ma leen di waxal daal mooy encore une fois maa leen di remercier bu baax di leen kërëm di leen sant xam nga damaa wax rek ñi nekk ci pouvoir mais nag waxuma leen tam ñi nekk ñu ci pouvoir kenn kese laa leen wax sax turam mooy le président parce que mooy le xalif général de tous les sénégalais waaye it wax naa leen ci opposition bi mais waxuma leen tur man leen ñi nekk ci opposition bi ay kilifa tamit ñi nekk ci opposition bi bari na ñi ma ci woo voilà parce que foogoon nañ ni dëddu naa combat bi foogoon nañ ni dem naa sama yoon parce que xam nañ ni nit bu am conviction la donc woo nañ ma ñoom it waxtaan ak man ñaan ma man président de la république je suis un sénégalais bu soxlaa wax ak man dama koy déglu am naa sama idée am naa sama vision am naa sama nopp je l'écoute attentivement ñu waxtaan parce que nit mënul toog di nemmeeku dara di metti metti dara ka nga jàpp ni moo leen ko teg tey dem bay wax ak yow nga ne doo ko may yow lan nga bëgg yow lan nga bëgg ki ngay wax li nga koy wax li nga lu ne nga yàq ko wala la nga koy wax yàlla may la possibilité kooku ñëw ci yow bu ko neexoon taxaw fee di xëccoog yow di reyanteeg yow mais defu ko bu ko neexoon la nga koy wax mu mere la ci ne non du wax ak yow yow parce que moom moo la kilifa moo du sa morom mais mu wàcce boppam jël téléphone am woo la wax ak yow nekkal ci kombaa bi yaa ngi ci yoon wax-wax ju rafet la wax vraiment yaa ngi ci yoon dafa nekk ci voyage mais bés bu ñëwee incha allah dina waxtaan ak man ah, mais dama koy déglu ko la jox la mbaamu wax la da koy déglu waaw way loolu mooy yëfu nit da déglu la nga bëgg wax te mu nekk ci yow nga yeggee ko ko man day nii laa gisee nii laa gise parce que moom am na fu mu la teg bu demee ba woola réew mi ak a bëri nit 17 millions yow nga nekk ba Canada njiitu réew ma da woo parce que moom bëgg na waxtaan da ngay déglu wax ko xalaat di ko ci sax ñaan boobu ko mënee ñaan di ko ci ñaan yenn affaires yi yoo xam ne xëy na yow bëgg nga mu mu def ci mu def ci mu def ci pexe xamal ko ni man bu dee man yegg am na fu ma la yegg yow monsieur le président mais bëggoon naa nga libéral ma ñoom Abdou Karim Gueye bëggoon naa parce que monsieur le président man saaga bu ma la njëkk a saaga te moom laa la mujjee saaga xam nga kañ la mooy ba nga jàppee Abdou Karim Gueye man du ma saaga kat benn saaga laa la saaga te boobu ba léegi ça fait trois ans trois ans je me rappelle très bien trois ans ma nekk ci parc bi métro park ma nekk ca parc ba toog di la saaga parce que jour boobu nga jàpp Abdou Karim Gueye Abdou Karim Gueye dafa am ñaari ñu bokk dañoo bokk en tant que mouvement hip hop muy sama mbok di sama xarit mooy benn ñaar Abdou Karim Gueye ñun dañ koo dugal ci révolution wàcc ci mbedd ndax ñun ñoo créé Y'en a marre jël Abdou Karim Gueye fekk ko ba fu mu dëkk ñu dem yanu ko indi ko dugal ko ci mouvement bi mu commencé di xeex kon tey Abdou Karim bu buñ ko gisee nii ñun dañuy kontaan parce que nga xam ne ñun ñoo influencé nañu Abdou Karim Gueye à ce que doon rab doon na kaas mais génn ci mbedd taxaw di xeex jëmmal boppam ñun ñoo ko influencé muy beneen lu tax ma am sof cofeel ci Abdou Karim Gueye ñaar ñu bokkaat encore ci mouvement bi mooy muy combat bi ñuy def nii ñu bokkaat mu nekk om de principe donc man doomu sanguin boo ca laal moroom ji yëngu boo mu bëggee yëngal laalal Abdou Karim Gueye boo mu bëggee yëngal laalal ay Cheikh Omar Diagne ñooñu dafa am beneen lu ñu am lu ñeneen ñi amul parce que Cheikh Omar Diagne rab na Cheikh Omar Diagne gars rappeur la woon rappeur téye micro di rap Cheikh Omar Diagne mii yàlla def ko mu doon tey ab ustaas bu mag macha allah am xam-xam kon tey bu mu tëddee nelaw njaaxaanaay ban yandoor du ma nit saa yu ma yewoo xalaat Abdou Karim Gueye chaque jeudi ma yónnee doomu aadama pour mu dem seeti ko chaque jeudi man nag Abdou Karim Gueye du ñu jóg ci di déggante ndeysaan chaque jeudi ma yónnee doomu aadama franc chaque jeudi mu dem mun naa leen anamu dama leen jeudi bii passé rek jeudi bii passé chaque jeudi laa la wax depuis ba Abdou Karim Gueye nekkee ci kaso bi chaque jeudi mu gis sama yóbbante te coow jibul bal tàkkul suuf yëngul waxuma ko fenn fenn chaque jeudi Abdou Karim Gueye yëg sama yëg ma bàyyiwuma ko ci kaso boobu seetaanuma ko ci kaso boobu dama taxaw parce que Abdou Karim Gueye fu ma toll la kon donc yoon la tey jii ki nga xam ne mooy kilifa bi di kilifa bépp sénégalais tey yaay may ma possibilité boobu ma ne ma ñaan ko loolu ma ñaan ko loolu ne ko jàppale ma ngir yàlla pour waa Abdou Karim Gueye ko bugg naa lool lool lool lool nga nga dimbalal ma ci quoi trop dara tewu la ci réew mi ndax yaa jiite ku ku fi taxaw yaa ko jiite luñ ci mun rek ñu jàppale ñu ci bu dee moom yow la offensé lool mun nga ko koo baal comme bu dee dañ la offensé loolu mun nga ko ko baal et cetera et cetera ça dépend ci fu wax ji yegg rek quoi donc sincèrement euh, sénégalais yi tamit aussi won ma seen cofeel ñu ci bëri dañ mer sax ñu ma lan moo tax nga tudd kooku ay mag ay kilifa ay maire ay paa ku ne woo na ma ndeysaan ñii message yi maa ngi jégalu nag lu tax jëluma ko parce que dafa bare bare bare bare bu doon tey damay jël appel yi di jël di tontu message yi moom duma fi da fii laay dëkk ndax ba dafa mel ni sénégalais yi ñëw buubu daw ñëw dafa mel ni dañoo jàpp ni lu rëy mi ngi leen mii ngi mi mii mi ngi leen di woon ginnaaw bu kuy nit sax kuy nit boo taxawee xool da nga xam ne saan man damay wax sax mais man man qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe pourquoi sénégalais yi nalawuñ pourquoi sénégalais yi benn wax bu ma wax rek merti waaj bu ma bu ma doon jéem a manqué respect bu tekkiwul dara ci kaw suuf di ma jéem a manqué respect ndax soxor ndax bon rek la ma wax noonu tax na benn doomu aadama nalawtul ñëpp ak di message ñëpp na moo laa jàpp ci moo no non moo laa lii moo la laa loolu dafa daw yaram dafa neex ci xol yi ndax dangay xam ni lii du yow lii yàlla moo ko def cofeel gi yàlla moo ko def mais du sa mën-mën du sa manoore am ñu ci mer lool ñii dem ci page waaja di ko fa saaga di ko fa yàq li ni xeme mais balaa nga xam ni il est mooy moom man rek lay man la jéem a manqué respect mais ñi koy saaga yow jéem tontu kenn parce que dama gis ni après j'ai compris que kii benn guignol la sabotekat la quoi parce que même xeex bi da koy sabote waa euh, di sabote moom day sabote quoi en day sabote day sabote te sincèrement même ñu nekk ci Sonko carrément nee nañ ma xamuñu ko ñoom ñoom xamuñu ko maanaam xamuñu xamuñu jëmmam moom munuñu bu taxawoon seen kanam munuñu ne kii la mais doomu aadama buy sabote xeex bi la muy toog lépp mu def ko émotion lépp mu fooy émotion ñu naan day kaañoo day kaañoo bu doon moom dañoo dañ ko rey ci booy yi rey mu bokkoon ci tey du toog di kaañoo bu doon moom ay frère lañ dóor bal comme ni ñu reyee booy nekk ay yëmbal ak booy nekk pigin kon tey du toog fii di kaañoo combat bi du kambaawu kaañoo caaxaan moo faaxe dëgg moo des combat wu caaxaan loolu nekku fi nit yi ñu ngi jaay seen bakkan nit yi ñu ngi tayle seen bakkan nit yi ñu ngi donc ay kaañoo dañ ci nekkul kaañoo non nekkuñu ci donc dañu nekk ci xeex mais bu ma gisee ne ab sabotekat la muy foo di caaxaan jël sañu affaire bi def ko caaxaan je pense je me suis dit que kii xamul urgence yi kii xamul fu ñu toll mais comme ni ko gars yi di waxee yaa ko may buzz yaa ko may buzz xëy na moom buzz lay wër <laughs> mais ñun moom euh, amuñu jotam te <laughs> am na benn mag bu ma ne bu bul sax jaar ci turam dee ko wooyee mbalit wala dee ko wooyee ñu may jox ay tur yu ma ko war a wooye ma ne ko amatuma jox jotam c'est dépassé naa ko romb naa ko dem sama yoon vraiment gangsters yi tam ñoo ñu ngi ma doon wax naan ma wutal numéro am gars ñi defal ko bagaas fii nee naa leen non du lu gën ci man quoi voilà mais gangsters yi sax nekk si street bi gars yi ñoom ñëpp nee nañ ma booy buujul ñu numéro am buujul ñu numéro am rek ñu tendre ko benn pièce waaye jaar fu xasaw léegi te sa sa coow du jib bandu tàkk mais loolu it newul suñu yéene parce que euh, bëgguñu violenter <laughs> soit disant sax ne dafa bokk ci euh, suñu idéologie ñoo ko nuroo donc amuñu envie vraiment violenter ko mais bu ñu tolloon si niveau boobu ñun mun nañ ko toog nañ fii mun nañ toog fii envoyé ko message ne semaine bii ñun dinañ la noqulu xaw ma fooy dugg mais dinaa la noqulu te semaine bii dinañ ko noq maa ko ëpp réseau gën ko taxaw ëpp ko fit ci leneen nag leneen mais bon grawul quoi on laisse tombe parce que après ma gis benn guignol quoi euh, bon lu ma leen mën a wax tam lii la ngeen xam ko euh, démb dama joxoon benn alerte du alerte boo xam ni comme man damay joxe ay information man agenda laay doxee ci agenda laay doxe te agenda bi bu suñ joon yàlla tey yéen ñëpp ay mag ngeen vous savez discerner le vrai de l'ivraie vous savez discerner le vrai de l'ivraie ay magum jëmm ngeen xam nga man bëgguma ku man garaawul man manqué ma respect man je fu fous booy mbedd la mais munoo saaga plus de mille six cent vingt huit personnes yu taxaw di ma seetaan nga leen di saaga ndey saaga ndey weesuwul yow sa baay jur la sa yaay jur la ñii seen baay jur seen yaay ñu am ay nopp di discerner le vrai de l'ivraie yow doo seetaan di leen saaga nday foo toll. maa ngi ci maa ngi ci live maa ngi ci live maa ngi lay rappelé maa ngi ci live maa ngi lay rappelé ma ne maa ngi ci benn live ni maa ngi lay rappelé léegi léegi léegi donc xam nga ni da ngay da ngay respecter doo saaga l'intelligence des gens plus de mille six cent soixante seize personnes di sept ak yu nekk YouTube ak yu nekk partout adduna bi yëpp braqué wu di déglu nga toog fee mel ni yow yaa namp ci ween bu kenn nampul naan yéen ki ngeen di seetaan sax yéen waru leen ko mérité ngeen koy setaan kii nga xam ni day fen rek mais mais wax naa ko ku sa bàyyi fen sa yaay tëddee ko boo màggee loo dégg foog ni fen la mais bañ la wooyee place publique na la kaay génne ñetti fan munoo koo génne saaga rek def saaga doomu aadama yi yëpp taxaw di déglu ay kilifa taxaw di déglu ay jabaru kilifa taxaw di déglu ay doomu kilifa Sénégal yëpp di déglu yow nga ne yow yaa xàmmee li kii di wax moom lépp ay fan la mais ñoom yéen ñii di waxoon yéen kenn baaxu ci yéen kenn amu ci juddoowul ci jur gu baax moom moom rek la baayam ak yaayam ku tekkul dara moom la baayam ak yaayam jur moo xam ra moo ràññee dëgg ak fen waaye yéen mënu leen ràññee dëggag ak fen ba mu am fit sax naan leen ku ngeen di déglu noonu kooku day fen rek bu leen ko déglu <laughs> non am na mi réew nag Sénégal am na ñoo xam ne noq leen moom dafa jot noq leen ba na ñaret dafa jot quoi